gars yi nag ñu ngi nii di place tey fii ci Gambia euh, Wally Seck waajal li nga xam mooy show bi nga xam war a am fii ci stade ñu ngi nekk nii di place fii de la xewi war a am fii ci stade bi nga gars ngi nii di place di di di di waajal waaw gars ngi doon nekk ci place bi tey moom fii du yomb gars yi di ngeen ko xool en direct sur la wan len tey waale li mu indi ak balance bi gis nga gars yi nii di balance Sometimes.